Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk internet yi nga xam ne yéenay suivre seen jotaay su ko defee rek dañuy daal di njëkkanteeg waxtu wi daal di nga ne tey moom lañ fekk si muy Serigne Maysa Mbuub di rakk ñu bokk ndey ak gisoon ngeen ko ci suñu jotaay ba lay weesu bi nga xam ne gis-gis la woon ci mu defoon ko fi tey nag ñu ñëw seet si waat ko pour bëgg a wéccanti waat nag moom lenn ci xam-xam bi nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko ak fi réew mi toll ci tolluwaayam muy élection yi xam ne dëgmal nañ ko gannaaw bi ñu xam ne génn nañ ci atum atum deux mille vingt et un dugg si ci atum deux mille vingt deux ñaan yàlla at mi tam yàlla sama borom def ko mu doon atum barke def ko atum xéwal def ko atum tawféex def ko atum jàmm waaye def ko tam atum mucc may sax ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar mboolem internautes yi ils sont en train de t'écouter et de te regarder. ok. Une grande salutation à vous. toute la famille du Mali. Libérez-nous pour qu'on puisse regagner nos familles. Les femmes et les enfants souffrent pour faute de nourriture et aucune commodité de vie. Nous regrettons d'avoir passé une nuit blanche à Kidira à cause des autorités sénégalaises par la confection de nos pièces d'identité, sans aucune raison logique. toute action contraire à notre demande serait préjudiciale. Encore une fois, nous demandons votre indulgence et votre bonne compréhension de l'espoir de la Teranga sénégalaise pour une solution idoine faite. Vive l'unité africaine, vive le Mali. On veut rentrer chez nous. Mali, on a vidéo partagée. On est là, sur le Tambolo, Sosomba en passe. tɛ sɔn den b'an bolo den fitinin de bɛ ne yɛrɛ bolo an n'an denw de don ko kɛra togo togo a gɛlɛya la togo togo a y'an to an ka segin an faso la a ye sira d'an ma an ka segin Kasim Goyita bɔ i ka ko kɛ an ka segin faso la an ka bɔ yan an ni so t'an ni dugu wɛrɛ tɛ. ayi an t'a bolo yan dɛ an bɛ min bolo yan nɔ o ye jamana. an ka bɔ an ka jamana kɔnɔdenw ka bila u ka don ka jamana kɔnɔ an ka perezan jigi bi ka makisal de bolo yan. u ka an ka pilasiw ta an ka an ka bɔ. an bɛ makisal de bolo yan an tɛ bɔn kɔnɔ bilen an b'ale bolo yan. Aujourd'hui, ça chauffe, mais ça va refroidir. C'est pour cela que mi mis l'hymne national pour te montrer un côté malien, un côté sénégalais. Un côté malien, un côté sénégalais. Je né au Sénégal, je suis au Mali. À part tout ça là, un Africain. Papa Mali, <laughs> ça devenir histoire. tous les pays, ils vont faire copie comme un Mali. Tout Africain, ils vont faire ce que Mali a fait. Inch'Allah Rabbi. Que se passe-t-il donc en Guinée-Bissau Des tirs nourris ont été entendus dans le secteur du palais du gouvernement ce mardi, là où plusieurs membres du gouvernement étaient présents. C'est la panique en ville et la plus grande confusion. Sarah Sacco, est-ce que vous avez plus de, de précisions Ce que je peux vous dire et ce que euh, confirment les témoins à qui j'ai pu parler à l'instant à Bissau, c'est que le calme est plus ou moins revenu à présent euh, dans la capitale euh, Bissau et que les abords de ce palais du gouvernement où ont lieu les tirs plus tôt dans l'après-midi sont complètement bouclés par des militaires que ces personnes m'ont décrit comme très euh, nerveux. Euh, d'autres sites stratégiques sont également complètement bouclés. C'est le cas euh, du le palais présidentiel donc en ville, du ministère la résidence privée du ministère de l'Intérieur. Voilà pour les dernières informations. Ce que je peux vous dire aussi, de ce palais la banlieue nord de la ville, à 6-7 km du centre Des hommes en tenue militaire bâtiment. Ils se sont affrontés avec d'autres militaires qui étaient présents, euh, euh, des officiels qui étaient sur place. Le président Imbalo euh, était en réunion dans ce palais du avec le gouvernement, réunion extraordinaire. On ne sait pas on est devenu pour l'instant. Les assaillants, que je vous le disais, donc sont selon toute vraisemblance des membres de l'armée. Ils ont échangé d'autres militaires. Voilà, donc ça a été la confusion pendant un bon moment à Bissau. Les écoles ont aussitôt fermé, les boutiques, les gens sont rentrés euh, se calfeutrer euh, chez eux. Et je vous le disais, donc les abords de tous les sites stratégiques gardés par euh, les militaires. Merci beaucoup pour ces premières euh, informations. Sarah Sacco, d'après le journaliste de RFI, Sébastien Lemaitre, le président, son Premier ministre était bien présent euh, dans le palais du gouvernement au moment des tirs. Euh, la réunion a été interrompue et puis Sarah le disait, les écoles sont fermées, des cordons ont été déployés autour des bâtiments officiels et puis d'après euh, l'agence France-Presse, de nombreux véhicules militaires chargés de soldats sillonnent actuellement cette histoire restera gravée on dit, quand tu vois un feu qui est il faut savoir que Dieu va amener solution pour éteindre ça. Mais je me profite là pour saluer Macky Je sais là il est aujourd'hui, ça touche, mais il peut pas faire quelque chose. Parce que c'est une attente. une attente, si tu n'as pas fait attention, ça va fausser toi. Sinon, Magisal même, il sait. Wallahi billahi talahi, ça lui fait mal Mais il ne sait pas quoi faire. Je vais dire à Macky Sall, il n'a qu'à soutenir Marie. Wallahi. Mon vidéo là, je veux que Sénégal aille jusqu'à chez Macky Sall. Il faut dire Macky Sall, je suis son fils, je suis son petit-fils. Je l'aime trop. Il n'a qu'à penser au Mali. Papatala, wallahi billahi, ce que les Maliens sont fait année passée là, je te le jure, n'importe qui qui rentre entre Mali et une autre personne, Dieu va te neutraliser. C'est moi qui t'a dit. Ça fait un. J'ai salé tous mes clients. Et je me profite, je vais parler en Bambara depuis que je suis venu au n bɛ min fɔ maliyɛnw ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada mali ye jamana ye jamana min tinɛgɛ tɛ se ka k'a la mali ye jamana ye jamana mun n'a tɛ se ka nɛgɛ ka buye to yen ka ayidara to yen ka sɛkumali faruku to yen ka karamɔgɔbaw to yen ka gindo alimamuw to yen walahi mali bɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ n'i ye ko gɛlɛyatɔ ye a nɔgɔyatɔ de don maliyɛnw ye danga min don walahi a danga bɛ n'a latɛmɛ maliyɛnw bɛ fan o fan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bil'i kunna k'i ye maliden an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ jamana wɛrɛw la an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ an kana perese an kana giringirin an ka jɛ ka di masa aramani ma ala ye saya da ka nin da ka balo da ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnɛbɔ n madam fɔfu fo n n ba fo n'o ye ana ye ka tila ka n fa fo n'o ye tɔnɔbura ye ka kirina fanbo saba fo ko ne ko k'u ni ce ni baraji k'alisa k'u ka dɔ fara duwawu kan je parle en bambara je vais un peu en wolof aussi papa t'a la ngi ñaani yàlla problème yi su dafa nekk Mali yàlla def indi ndox pour faj ko papa t'a Mali dëkk bu baax la parce que lu tax waa français nee na def élection benn dëkk ñoom mi ngi am problème comme par exemple Sénégal mi ngi am problème Kaolack amu problème Tivaouane mi ngi am problème seenu am problème est-ce que élection mun naa def yombul ne moo tax ay maliens militaires nee ne jokkuñu temps ñu stabiliser sunu pays ba pare si ñu stabiliser élection am benn problème mais man xam na yàlla dina génne Mali ci affaire bi Papa Talla ñaani gars yi dafa def année passée billahi tallahi Papa Talla ñaas ñaan bi musu ko def amul benn président ñaan bi su gars yi dafa ko def noonu amul amul ay coutume dafa def ñaan ay sëriñ dafa def seeni ñaan ay féticheur dafa def seeni ñaan lu ne war na def ci àdduna kenn ku ne def la sa ñaan am na ay nit ñoom dafa dem ci àll bi ñoom dafa def trois semaines xalwa foofu ñaan rekk musu ko def am na ay yeneen tam ñoom dafa dem ci montagne dem foofu ay ñaan am na ay ñeneen tam ñoom dafa nekk seen këri ñaan billahi taala ñaan bi du daan man maa la wax lool. ma ne Papa Talla même ay xale yu tuuti su dafa xam dara kenn ku ne ñaan na musu def non ça n'a jamais arrivé au Mali ça c'est la première fois maa ngi ñaan Macky Sall xool ginnaaw tuuti. Sénégal Mali benn la Sénégal Côte voir benn la Sénégal Guinée benn la ma ngi ñaan Macky Sall dama bëgg sama vidéo dem ci Macky Sall nga wax ko doomam moo wax ni su fekkee ne mun naa dem ci moom billaay taala ma sol sama dala dem ci moom ma wax sama maam xool ginnaaw Papa Talla si affaire Mali bi dafa jeex pays ku ne da nga xam si seen turu mi ngi ci affaire bi billaay tallaashi man maa la wax su deful subu yàlla dina ma laaj man maa la wax kenn ku ne nga am problème sa dëkk man maa la wax loolu kenn ku ne nga am problème sa dik et puis encore kenn ku ne sa fetal su daan Mali billaay tallaay sa dëkk dina taal. Papa man. maa ngi protéger Sénégal boobu moo tax dama génne tey wax Macky Sall parce que sama deret moo nekk fii sama pap fii laa dëkk sama maam fii laa dëkk sama rakk fii laa dëkk donc du ma bàyyi Sénégal dina am problème ci sama kanam lu ma mënu wax dina ko wax en tant que xale ak respect est-ce que su amu dee su tuuti tuuti quatorze personnes kanukune nga moytu papa tala 2022 bi kenn kanukune nga moytu ak sa jëkkër waaw kenn ku ne nga moytu ak sa góor góor tam nga moytu ak sa jigéen papa tala 2022 bi sëy bi dina sëy pour tase dina bare de ma la wax nga bindi teg avant six mois nga dem ci tribunal ah sëy bu pour tas su motul sang soo ñëw ci man man du ma seet encore est-ce que yaa ngi comprendre dama bëgg wax nit ku ne nga moytu ci sa sëy su dafa am coow muyul su dafa am xuloo muyul naxante 2022 mooy yombul mu yombul dama déggu benn émission benn waa ji ne ne si terrain bi dafa commencé dina ma ay nit lu bare xama turu bi mais yaakaar na benn sëriñ la li mu wax dëgg la de Papa li mu wax xama turu bi mais dëgg la de parce que waa sénégalais dafa fàtte benn affaire Papa coutume il faut pas que sénégalais fàtte seen coutume Papa Talla si sénégalais yi dafa fàtte seen bi loolu dina nekk sénégalais dina sonn su président génnew ko sénégalais si yéen dafa xam génne man ci boppam man xam ma coutume fii su ma xam billaay duma xaar kenn dama bëgg même wuti autorisation su fu ne ma dem mun na liggéey parce que soo miinu al eh, jàmbur doo dem nii liggéey loolu yombul su ma amu autorisation lu ma mun su ma def si sama dëkk dina ko defaral loolu conseil la bugg wax sénégalais Papa Talla du Sénégal kese du Mali kese de pays yëpp dina yëgal man maa laa wax six mois pays dina yëngal kenn ku ne si yaa tabak tabax sa kër année passée soo moytu année bi nga nga jaay ko hmm? ah yàlla moo dogal lool pawatala sëriñ yàlla même yow ci boppam yow la micro bi yaa jot yaa ngi def sa liggéey soo ma jox mënu ma ko def kenn ku ne saa yow na kenn ku ne yàlla may la xam-xam mais doo nekk yàlla est-ce que yaa dëkk yëpp dina yëngal C'est bon. Mi tarde se enamoró. Que se passe-t-il donc en Guinée-Bissau Des tirs nourris ont été entendus dans le secteur du palais du gouvernement ce mardi, là où plusieurs membres du gouvernement étaient présents. C'est la panique en ville et la plus grande confusion. Sarah Sacco, est-ce que vous avez plus de, de précisions que je peux vous dire et ce que euh, confirment les témoins à qui j'ai pu parler à l'instant à Bissau, c'est que le calme est plus ou moins revenu à présent euh, dans la capitale euh, Bissau et que les abords de ce palais du gouvernement où ont lieu les tirs plus dans l'après-midi sont complètement bouclés par des militaires que ces personnes m'ont décrit comme

bâtiment. Ils se sont affrontés avec d'autres militaires qui étaient euh, des gardes du corps également, euh, des officiels qui étaient sur place. Le président Imbalo euh, était avec le gouvernement, réunion extraordinaire. On ne on ne sait pas ce qu'il est devenu pour l'instant. Les assaillants, que je vous le disais, donc sont selon d'autres militaires. Voilà, donc ça a été la confusion pendant un bon moment à Bissau. Les écoles ont aussitôt fermé, les boutiques, les gens sont rentrés euh, se calfeutrer euh, chez eux. Et je vous le disais, donc les abords de tous les sites stratégiques gardés par euh, les militaires. Merci beaucoup pour ces premières informations. Sarah Sacco, d'après le journaliste de RFI, Sébastien Nemeth, le président, son Premier ministre, était bien présent euh, dans le palais du gouvernement au moment des tirs. Euh, la réunion a été interrompue et puis Sarah le disait, les écoles sont fermées, des cordons ont été déployés autour des bâtiments officiels et puis d'après euh, l'agence France-Presse, de nombreux véhicules militaires euh, chargés de soldats sillonnent actuellement euh, président lu bare dina bay seen bakkan lu Sénégal kese adduna di bi yëpp président lu bare seen bakkan dina bay bon moo tax ma ku ne sa yaay mi ngi sa wet sa pap mi sa wet sa mam mi ngi sa wet <laughs> yokkoli ñaan soo deful nga ñàkk de jërëjëf alaaji sa Mboup ci leeral bu am solo boobu waaye tam ci détermination wu li nga xam ne yaa ngi ko gis te di ko wax te nëbbatu woo ci waaye man li ma ci gën a itteel mooy euh, son excellence monsieur Macky Sall nu ngi koy ñaan mu wax le gouverneur wala le préfet de Dakar ñu may la autorisation ngir nga mën a dugg ci biir àll bi dugg ci biir mbeex mi mën a liggéey liggéey bi nga xam ne askanu Sénégal nga koy ndax liggéey yi nga fa fas yéene def yëpp yéene bi nga ci am mooy sauver Sénégal gi nga xam ne yaa ngi fii ne ndax waxoon nga ko ci suñu jotaay bee passé nga ne bu fekkente ne yaa ngi ci biir gaal gi gaal gi war a lab boo sauvé sa bopp sauvé gaal gi moo gën a wóor nga sauvé sa bopp ke kese yow li ngay wax ni sauvé woo sa bopp waaye Sénégal en particulier nga bëgg a kon yàlla na yàlla fexe ba message bi yegg ci son excellence bu ko déggee itam yàlla na ci def ay jéego ba nga am autorisation boobu ndax ku dégg li ngay wax ne détermination ngay waxee ku ko dégg itam xam ni xool ngay waxe macha allah rabi te yàlla mën na cee def sutura yàlla ko yàlla motale incha allah rabi. est-ce que yaa ngi lu tax Kya dafa gëm Serigne Babacar Sy est musu na ko gis ah mais souvent Kya su xool Serigne Babacar Sy dinaa woon nit ne ne kay xool Serigne Babacar Sy mi ngi wax ak man. wax na ma ko ñaari yoon. soo bëgg si misa yér ne ne wàccal sama serin dina la xool mais lu tax yàlla ne na loo gëm mhm. man dina dugg barka ci biir boobu. Mhm. Mhm. est-ce que yaa ngi comprendre du def dara su waxul Serigne turu Serigne Babacar Sy même su bëggoon naan mhm. nee na ngir Serigne Babacar Sy dafa bëgg laa jox garab nee na ngir Serigne Babacar Sy mais mosu ko gis mais lu tax dafa wax lool yàlla defa ko def parce que dafa ko gém mhm. yalla ne loo gém même su fekkee du dégg loo gém rek dina la jox barka ci boobu lu tax ni di mi ngi ñaan ci xeer mhm. parce que ñoom dafa gém lool yàlla ne loo gém dina laa jox barka soo dee ñu jugé suñu diggante. si yaa ngi comprendre ci loolu waaw. amati na solo alaaji may sa mbuub macha allah rabbi ci leeral bi waaye tam ci njàngale gi ndax nee naa li mu doon doon doon doon doon gone teewul na fi ne li muy wax ni moom xam-xam lay wax macha allah te wax dëgg yàlla bëri na ñoo xam ne ñu ngi dem ci ay bërëb di ñaan di ñaanlu te xamuñu naka lañ war a ñaane te leen lu ci nekk boo xoolee dafa am yoon wu mu war a jaar macha allah rabbi ndax nee naa ku jëm ciw dëkk faaw nga jaar ciw yoon jëm ci biir kër faaw nga jaar ci buntu ba a a mucc ay ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu buru yàlla dolli noo ay maqaama